ku ñuy xam daal cheikh ibrahima moom du ñu ko ñuy xam ndax baay ibrahima ci am na cheikh ibrahima nee lamb yàlla àjjuma lañ ko tëgg gaaw mu di ber lamb ja tas ibrahima ci am ma ne fal mu ne ma ndax ma wax la ki daan mu ne teg mu ne ma wax ku daan doom luy teggin ba lamb ja na ma ñett yoon yonent bi gërëm ma ñett yoon sëñ bamb gërëm ma ñett yoon ko rek laa ru bët waxel sëñ bi kon kooku mën ne su ko xam te fi ne lu nit ñi li ñuy xool ci seen bët ak seen xel lañ koy teg te su seen lu seen xel nanguwul ñu weddi ko te kii xajut ci xel ah waa kii xajut ci xel te yow xel rek ngay utiliser woo ak bët te néewut ci bët xajut ci xel si mi kooku mënoo ko xam kon nag ma bëgg moom moom mi nga xam ne dañoo yaakaar Serigne Touba ñu jublu Cheikh Ibra Fall li xew ci jamono xam nga waxoon naa la ne dinañ ci waxtaan fi ne ci nii nuru nuru Baye Fall. ak ñi nga xamne dañuy dañuy dañuy dañ cey jaare di di di di di gis ñoñu tax ñuy weddi mm-hmm. ak a diingat mm-hmm. cheikh ibrahim takkat sëñ mudjo jaw paxa nen dama nuyu borom tuba mu ne ma mudjo sawarango gi dem mu mm-hmm. ne ko moom mbàkki sawar lu mu wëra wut fi yow mu ne ma da ñew dima dis bopam di xalaat na ëlëk du am kum lak mu ne ko wa mbàkki yow ko wëra a sawar safara mu ne loolu dama jaaxal waaye ba ne bay dem day nee ko sédd na la kuy diingat ibra fall ëllëg mu sëb cër sëñ bi sawar dana fess del na bi ndax cheikh ibrahim waxuma la dingat mais sikki sàkk sax borom Tuubaa bëgg ko dafa fiir ci moom xanaa xamoon ne loolu laal ci moom yëg na la yëg naa yëg parce que naaru gànnaar bi ba muy wax dafa wax man sàkk fii Ibrahima Fall xam nga loolu mooy sikki sàkk wa fii tariqatil kamal mooy si amaal ay ni indal eh, wa fii tariqatil kamal illam yatub li sel jalal yura azaban xannukar loolu la wax de daana tariqahu xayru turux salikahu kafal xarax xaddan yakunu kal barax si xan fi jasar ne ko haqiqatul munawwara sabata fi lawhil mahfuz shari'atu mutahhara fi kutubil munazala kon gaay ñoo xamul li xew rek mais cheikh rafal ëpp na sikki sak señ bi ëpp na dingat li ci ne moy gëssu ba xam ci mbiram dara njëriñu ci so ci xamul dara nga manu ta pourtant roy mba rombu joj ñuy wax rombu sax day day erreur señ bi señ ma dem ci borom xam-xam yi la bokkon mo wax ni karo bi muy ñëwee ci Cheikh Ibra ci njaareem doom ma ko nettali nee na ko sëñ damaa damaa jub damaa jub sa kër na safoor bi sama safoor nañ teggi Cheikh Ibrahima Fall ndax ku mën a téyewaate la soo fi jaaree mu téye la nee na waaye li ma feeñu li ma li ma li ma wax li wax ak man nee na lisaanul àll de moo ma a Cheikh Ibra Fall ku ko tegg boo liggéey bu yàlla si ne dina la teggi kon sëñ bi boo ko rombee foo jëm